final lañu wax bul wax ni ànduñu ci dañ ni final bi dañ ko bëgg a joué fii ak le 14 te buñ joué final bi euh, seen billet dañ ciy perte ndax ASC du am quote part jox naa leen à subvention deux millions ma neen je prendre en charge la sécurité et le financement de la finale ñu d'accord ñu signé protocole ci kanamu préfet sous-préfet ñoom ñëpp ñu toog et les notables tous les ASC ñu signé protocole bi nga xam ne moom lañu boole woon tey jii ñi ngeen tendre micro ñu wax wala ki ngeen ko tendre signature ma ngi nii avec son numéro de téléphone te ko euh, terrain bi ñu doon def nootoo dong moom ko terrain la boo xam ne commune bi yëpp ko bokk te tous les villages de commune d'accord pour projet bi am parce que la commune fait 38 000 âmes 24 kon benn ASC boo xam ni ci benn koñ la dëkk su dikkee naan d'accord ma te moom signé woon na bon ab c'est des problèmes ñu xamante nañu c'est des karimistes ou bien des ñu ñun duñu tee liggéey tey jii population yëpp d'accord nañ travaux yi dina démarrer stade bi nga xam ne mooy bu bees bi ma leen di defaral l moo ma jox financement ña ngi koy miiree bi commencé na miir nañ euh, brique nañ fa vingt cinq tonnes ARD moo jël en charge superviser travaux bi créé nañ commission ñoom seen i ñu bokk ci bu ñu superviser les travaux. bu ñu buddi woon camp yi yóbbu ko fële mën nañoo def final bi foofu ASC yi d'accord naa ñoom pour ma jël billets yi en charge jël les frais de la finale. wax bu fekkoon dañoo bañoon terrain bi am su préfet bi fi nekkoon du ko délibéré ba ma jot sama terrain amatul benn document administratif bu may permettre ma bañ a liggéey defar naa samay plan les travaux vont bientôt commencé résultat nag lañ bëgg Afrique nag li fi mitti mooy boo bëggee def résultat ñi lu ñu def seen poche wala ñi lay yàqal dañ lay jéem a baare man je si suis pas pour ça am na maire yoo xam ne nag ils sont là pour un régime mais ñun maire yi ñu doon dañoo nekk fi pour maire askan wi te on a presque toute la population derrière nous ku jaar ci marché Noto bi tali bi président Macky Sall defar rafet na trop mais pour nga traverser Noto goo jëmaat tu presque une heure trente minutes parce que ay charrette amuñu marché da am ay deux 2000 sacs yuy wat ci marché bi période boo xam ni doo xam ne lu mu demee suñuy juuti dañuy réer duñ ko mën a calculer mais avec ce projet laa nga xam ne bu dañuy am un marché fermé ñu xam liy dugg liy génn ñu am ay recettes dans ce cas ñun dinañ mën a développer la collectivité locale sans même beaucoup de partenaire étrangers. ni koo xam ne dafa signé àjjuma ni bokk naa alxamis mu xëyaat parce que am na ño yenn commerçant yoo xam ne ñoo am ay magasin fi marché bi jot a nekk nii ñoo ko naan kiyal pour ñu ko te encore kooku di kaas biñ créé commune ba léegi sa fay ODP musa fay patente na leen wan benn ticket ODP bu mën a fey kon ku bëggub commune am dangay commencé ci fay taxe yi nga xam ne moom minimum te ñu ngi leen di demandé boutique bu nekk 3000 francs te musu koo fay. Moustapha ODP dañu jël nañ ay charrette yu bale dëkk bi ñun on est là pour l' intérêt général pas pour l' intérêt individuel élection jeex na man